jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara ci bis bu tedd bi ak ci waxtu wu tedd bi ak ci bar bu tedd bi ñu nekk di leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla mu boole nu baal di ko ñaanit mu sàmm nu sàmm leen waaye sàmmal nu kilifa yi nekk ci sunu kanam ba li ñu yéene yàlla may leen ñu àggale ko nañ ko bëggee te ñu ànd ko ak ñoom suñu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale ci benn tomb bu ñu jàpp ne bu am solo la ndax am na solo waaye ñu bari dañ koo sàgganee te mel na ni ñu bari ñu ngi koy foyee te muy lu am solo lool bari ay njariñ yu mën a jural nit ki waaye bari ay lor yu mën a jural nit ki loolu moo di làmmiñ ak wax seetlu nañ ci jamono yu mujj yi ñu nekk ni ñu bare bari ñi ngi jëfandikoo seeni làmmiñ ci lu tax la taxul yàlla bindoon ko waaye nit ñu bari it ñu ngi jëfandikoo seeni nopp ci diglu loo xam ne taxuloon yàlla bindoon leen nopp yooye kon loolu bu amee laa biirante war naa am ba kenn ku nekk xam li la war ci saw làmmiñ nga di ko ca wax xam li la ca warut nga di ko ca wattandiku waaye nga xam li la war ci say nopp nga di ko ci diglu waaye la la ca warut nga di ko wattandiku suñu borom tabaaraka wa dafa tànn doomu aadama ci mboolem mbindeefam yi bind ko mbind ba gën a rafet ci bind yi muy ahsana taqwiim boole ci tànn ko ci biir mbindeef yooyu teral ko ci gënal ko gënal ko ci mboolem mbindeef yi ci des yépp mu gënal ko ci ñoom xéewal ko ay xéewal yu bari yoo xam ne mënu koo lim mënu koo dajal wa in taaddu nicmatallahi laa tuxsuuha xéewal yooyu mu ko xéewal nag bari na lool waaye bokk na ci yi ci gën a am solo xéewalu làmmiñ muy wax mën a wax soxlaam bokk na ci lay wane ne am na solo mooy sunu borom bi muy tudd xéewal yi mu xéewalee di ko lim da caa beddi làmmiñ ak bët alam naj'al lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn sunu borom mi ngi nuy mànn di nu wax xéewal yu bari yim nu defal waaye nag bokk na ca yi ci gën a fés mooy xéewalug gis ak xéewalug làmmiñ ba mën a wax sunuy soxla arrahman xalaqa al insaana allamahu l bayaan kon wax lu am solo la loo xam ne sunu borom xéewal yim nu xéewale bari na waaye danay tudd foofu lu bari xéewalug làmmiñ ak mën a leeral li nga bëgg a leeral dana koy tudd lu bari ngir ñu di ci bàyyi xel di ko ci mën di sant ni ko ci war a sante bokk na ci liy tegtale rëy gu làmmiñ rëy ak màgg gu màgg ak mën ngi koo jëfandikoo ci ay anam yu bari mooy day li ñuy tuddee jaasi ju am ñaari ñawka jaasi joo xam ne mën nga koo jëfandikoo ci ñaari anam yëpp mën nga koo jëfandikoo ci aw yiw am ca ngërëmal yàlla ak ajjanaam waaye mën nga koo jëfandikoo ci aw ay am ca merum yàlla ak sawaraam su borom tabaraka wa taala mi ngi nuy wax ci alxuraan ñaari mbooloo yoo xam ne bii daf koy tagg ba dugal ko àjjana ci wax jum wax ba ca des mu di ko ŋàññi ba dugal ko sawara ci wax jum wax nga xam ne ñoom ñaar ñëpp la leen dugal fañ nekk wax moo leen fa dugal wa isaa sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunuhum tafiidu min addam'i mimma arafu min alxaq yaquluuna rabbana amanna faktubna ma alshahidin wa ma lana la numinu billahi wa ma jaana min alxaq wa natmaw an yudxilana rabbuna ma alqawmi alsaalihin fa athaabahum allahu bima qaalu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha ñooñu suñu borom dafa leen a tagg wane ne ajjana joojee mu leen may ajjana joojee mu leen xéewale la tax mu xéewale leen ko ay wax yu génnee ci seeni làmmiñ tey wax yu rafet moo tax yàlla fayee leen ajjana joojee fa asaabahum allahu bima qaalu jannatin tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha kon wax ju rafet dana tabbal nit àjjana waaye noonee la wax ju rafet tabbal nit àjjana waaye wax ju ñaawit noonu lay tabbal nit àjjana ma ngay melal ay nit yoo xam ne yahuud yi la leen tabbal sawara seen wax ju ñaaw ci seenu làmmiñ moo leen ci tabbal wa qaalat al yahuudu yadullahi ay qullat aydihim waluinu bi maa qaalu waluinu bi maa qaalu lañ wax yàlla ci lu ñaaw tudd ko ci seeni làmmiñ moom leen yàlla rëbbe ba soril leen yërmandeem dugal leen ci mbugalam kon wax ci làmmiñ dana tàbbal nit àjjana waaye wax ci làmmiñ it dana tàbbal nit sawara loolu wane na ne kon làmmiñ am na solo lool mën naa sa mën naa wattu lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo leeral ci beneen addis ne am na nit koo xam ne dana wax ci làmmiñam jenn wax ju gërëm loo yàlla te moom mi ko wax sax bàyyiwu ci xel waaye wax joojee yàlla bindal ko ci yiw bindal ko ci ngërëmam loo xam ne bu ëllëgee bu dajeek moom ba mu di ko ko fay du foog ne sax baat boobee moom la yàlla da wax benn baat bu safaanu ciw làmmiñam bàyyiwu ca xel ba yowmal xiyaam mu gis suñ borom fayee ko ca baat boobe loo xam ne foo wutoon ne baat boobe àgg na foofu kon nag sàmm saw làmmiñ ci wax loo war a wax waaye sàmm saw làmmiñ ci bañ a wax loo war a wax nekk na lu am solo lool ci lislaam ndax nit ki li muy wax ci làmmiñam moom mooy responsable loolu lépp lu génn ci aw làmmiñam dañ moo ciy responsable te dañ ko koy xisaab ëllëg yowmal xiyaam benn baat bu génn ci saw làmmiñ moo xam bu baax la wala safaan la sunu borom tabaraka wa nee na danaa leen ko bindal te danaa leen ko xisaab bu yowmal qiyaame maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kenn ku nekk la nga wax am na ñu ne ñu ànd ak yow ñu la sunu borom booleel ñu yor seen i xalimba baat boo wax bu dee baat bu boo war a wax wala boo war wax lépp danañ ko bind ci ab téere ëllëg ñu indil la ko tegal la ko ci sa kanam waxuma la sax ñu bindal la ko waaye léeg-léeg day fab cër ba doon wax muy waxal boppam la mu doon def yow nga taxaw fële cër ba moom di wax maa waxoon nangam maa waxoon nangam maa waxoon nangam yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun kenn ku nekk sa cër ba nga defee woon safaan mu taxaw di wax safaan ba ngay dégg sa cër bi nga waxee woon lu baax mu taxaw di wax lu baax ngay dégg kon kenn ku nekk war ngaa sàmm loolu ëllëg ndax ku ne boo sañoon bu ëllëgee bu say cër di nettali nettali la loo xam ne loo mën a dégg la nettali la loo xam ne lu lay amal njëriñ foofu lay doon kon loolu am solo la lu ñu mën a bàyyi xel bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba bu ñuy wax Muaas ibnu Jabal dafa dikk ci moom ne ko yaa rasulallah anu aaxasu bi ma naquul ndax yàlla wax ji ñuy waxante rek di wax suñuy wax rek danañu jàppee loolu ñuy wax danañu ko xisaab ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko axa kay ndax dangaa jàpp ne ña sawara am ña ca ëpp la leen fa yóbbu du seen góob yi ci làmmiñ ñi dem sawara nee na ña fa ëpp luñ jiwoon ci seen làmmiñ ci lu baax ci lu bon buñ demee yomal xiyaam ñu góob ko jox leen loola moo leen dugal sawar bañ nekkee àdduna dañ doon góob ci dañ doon ji ci seen làmmiñ dañ doon ji ci seen làmmiñ lu ñaaw di ca wax lu ñaaw bañ demee yomal xiyaam nag ñu góob seen tool yooyu ñu doon bay ci àdduna ci wax ju ñaaw fayee leen ko nee na la ëpp ci ñi dem sawara loolu moo leen fa dugal la ëpp ñi dem sawara loolu moo leen fa moo leen fa dugal kon làmmiñ nekk na lu am solo wax nekk na lu rëy lool ba ñëpp war koo sàmm rawatina ci jamono joo xam ne tasaare ay wax dafa gën a yomb tas ay wax dafa gën a yomb jamono jooju jamono ju nekk la sàmm ay wax gënoona am solo waaye jamono ji nekk nag ci la gën a am solo ndax bu dee aw yiw ca lay gën a yaatoo ndax li ko yaatal bari na waaye bu dee aw safaan ca lay gën a lore ndax li ko yaatal gën naa gën naa bari moo tax suñu borom tabaraka wa ci alquran ñuy gis muy indi aaya yu bari di nu wattuloo sunuy làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam di indi addis yu bari di nu wattuloo sunuy làmmiñ ci ñi di ko jëfandikoo ca lañ ko war a jëfandikoo yaa ayyuha alladina amanu yaa ayyuha alladina amanu taqullaha yaa ayyuha amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida da ngeen ragal yàlla tey wax wax ju jub ju baax seen làmmiñ di leen ci génne wax ju baax yuslih lakum amalakum wa yaxfir lakum dunubakum bu doon toon loolu rek doyoon na nee bu ngeen dee wax wax ju baax muy génne ci seen i làmmiñ danaa leen defaral seen i mbir danaa yéwénal seen i mbir ci àdduna te danaa leen jéggal seen i bakkaar alaaxira nga xam ne kon wax ju baax képp mën naa tax yàlla yéwénal àdduna bépp ñëpp seeni mbir yéwén waaye mën naa tax yàlla jéggal ñëpp seen i bakkaar ci wax ju baax ci lañ koy jëlee wa quulu linnaasi xusna su ngeen dee wax ak nit ñi day leen wax ak ñoom wax ju rafet wax ju teggiinu wa qul li ibaadi yaquulu lati iya ahsan waxal sama jaam ñëpp nee nañ nañuy wax lu baax nañuy wax lu rafet ci seen i làmmiñ kon loolu lépp teg tegtale na suñu borom tabaraka wa taala soññu nañu lu bari ci ñu jëfandikoo seen sunu làmmiñ ci lu baax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo leeral ci ay hadis yu bari yoo xam ne dafa indi aw làmmiñ boole ko ak gëm yàlla wane na fu làmmiñ wu baax wuy wuy wax lu baax nekk gëm yàlla nga fa waaye fu làmmiñ wuy wax safaan nekk gëm yàlla nekkatu fa ñoom ñax dañuy teqale ko al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi ab jullit daal bu ñu ab jullit a ngi nii xoolal ba xam ndax aw làmmiñam musal na ca nit ñi wala ab loxo musal na ca nit ñi waaye kuñ ne ab jullit la te nit ñi muccuñ ci aw làmmiñam wu ñaaw nit ñi muccuñ ci ab eh, loxoom bu ñaaw nee na kooku day tuddoo jullit waaye du ab jullit al muslim man salimul muslimuuna min lisaani wa yadi mu del waxaat ku ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li ku gëm yàlla gëm bis penc te muy dëgg ci yow saw làmmiñ dee ca wax lu baax te noppi saw làmmiñ dee ta wax dee ca wax lu baax te noppi kon gis nga ni mu takkalee ju nekk jullit nekk muslim wala nekk mu'min yëpp benn bu ci nekk la koy tegtale mooy la ngay wax ci saw làmmiñ mooy tegtale la nga xam ne moo am ci sa sa sa xol la koy wane mooy lool. sallallahu sa wa sallam noonu lañu ñu ñaaxee ngir ñuy jëfandikoo suñuy làmmiñ ci wax ju baax noonu it lañ ñu ñaaxee ci ñuy wattandikoo jëfandikoo suñuy làmmiñ ci wax ju safaanu. suñu borom waxta ci alquran ay aaya yu bari yoo xam ne dañuy tere. ñuy wax ñuy biral ñuy ñuy ñu saf ñuy siiwal wax ju wax ju bon laa yuxibu llahu bi bisuui min alqawli illa man zulim fajtanibu rijza min al awthaani wajtanibu qawla zuur wattandiku leen wax juy neen ay neen wax joo xam ne ay neen la waxi safaan la wax joo xam ne waxi safaan la bu leen ko biral bu leen ko tasaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ci ne inna allaha la laa yuhibu alfaaxisha albadi yàlla su ma rob tabaraka wax na yonent bi ne man de bëgguma nit koo xam ne day ñaaw làmmiñ di ñàkk kersa ku ñaaw làmmiñ ku ñàkk kersa di wax lu kenn bëgguta wax ci saw làmmiñ moom mu di ko ñemee wax ci làmmiñam la ñëppiy suturaal duñ ko tudd ci seenu làmmiñ moom mu ñeme yàlla ba di ko tudd ci làmmiñam nee na suñu borom tabaraka taala nee na man de bëgguma waa jooju te suñu borom ku mu bëggul xam nga fa mu jëm ak yow am na benn saxaaba bu ñuy wax euh, Sufyaan as-Saxaawi yi dafa ne dama dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan nga gën a ragal ci man lan mooy loo xam ne ma gën nga koo ragal ci sa ci sama mbir mu daal nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di tàllal làmmiñam jàpp ci ne ko kii rek laa gën a ragal ci yow sa làmmiñ wi rek moom rek laa ragal ci yow boo boo boo boo fexee ba mucc ci rek da nga mucc ëllëg kon loolu tegtale na ya làmmiñ lu ama ama am solo la lu ñu war di toppatoo loolu moo tax noonu ko yàlla diglee ci alxuraan soññu ñi ci jëfandikoo suñuy làmmiñ ci lu baax wattandiko cee jëfandikoo ci lu safaan loolu su Seexul Xadim radiyallaahu taala xam ba bi mu ñëwee bi muy leeral yoonam wi mu leeral nu cër boobu naka lañ ko war a jëfandikoo làmmiñ lan lañ ci war a wax waaye làmmiñ lan lañ ci wërta wax lu tax yàlla bindal la ko ba nga war ko caa wax waaye loo leneen loo xam ne taxutoon yàlla bindal la ko ba nga war ko wattandiku mooy moom lay wax ca mu la ñu ne sudur ama lisaanu faalaman faalaman bi annahu axdabu aadaika fahfadannahu nee na sa làmmiñ wi day boo xamoon da nga xam ne mooy noon bi yées ci say noon noonu yi am yëpp boo leen dajalee làmmiñ moo ci yées ataakahu llahu li kay tukassira bihi tilaawatal kilaabi muksira yàlla dala koo jox ngir nga di ci bari looy jàng alxuraan di ci bari looy tudd yàlla di ci bari looy digle lu baax di tere lu bon nit ñi mën cee jubee waaye di ci faj say aajo yi nga xam ne wax moo koy faj bu ñu ko xamul du faju waaye di ci sant sa borom nee na yooyu rek mooy yi nga xam ne moo tax yàlla bindal la aw làmmiñ ataakahu llahu li kay tukassira bihi tilaawatal kitaabi muksira zikral ilahi wa takunu murshida bihi ila tariqi diinin abuda wa bi wa bi wama bi qalbika bihi li tazhara min alxawaaiji wa rabban tashkura lii rek a tax yàlla bindal la làmmiñ tudd yàlla jàng alxuraan wax ci lu baax lu mën a jubal nit waaye faj ci say aajo yi nga xam ne mënu koo faj ci lu dul aw làmmiñ sant ci sa borom yooyu rek moo tax sunu borom tabaraka wa taala bindal la làmmiñ woowu beneen ba ca des mu ne la kon loo ci war a wattandiku nag lii nga ci war a wax li nga taxoon yàlla bindal la ko waaye li nga ci warta wax nag mooy lan am amma lisaanu fahfaduha abada min athamaniyati yatikum huda mais na juróom-ñett ngi nii yoo xam ne ku amul làmmiñ war nga caa wattandiku war nga caa wattu juróom-ñett yooyu mu ne mooy yan alkasib mooy wax lu amut wal xiibatu mooy jëw wal mira werante ma aljidaal dagge sante wa min istihza ak xeebante wal xulfa fil waxdi ak wute akub dig loo digge doo ko wax loo wax ne digge géegée nga ko doo ko def wala anil xawli ak di rëbb nit ñi di leen saaga wa taskiya taskiyatu nafsi mooy ngay sellal sa bakkan di tagg sa bopp wala ngay sellal sa bopp nee na yooyu yëpp sunu borom tabaraka wa taala daf koo tere ci saw làmmiñ waroo ko caa wax juróom-ñetti yooyu lépp na nga ko wattandiku waaye juróom-ñetti yooyu moom na nga fexe ba saw làmmiñ du ca du ca du ca kon loolu wane na ne sunu borom tabaraka wa taala am na lu mu digal nu di ko jëfandikoo ci sunu làmmiñ Serigne Touba wax nañu ko am na lu mu tere ci suñuy làmmiñ ñu wax ko ca jëfandikoo Serigne Touba wax nañu ko kon loolu wane na ne war nañoo sàmm suñuy làmmiñ ñëpp a ko war a sàmm jullit yëpp waaye ab taalibee ca raw ndax wax yàlla rod na ci wax yonent bi rod na ci Serigne Touba leeral na ko bu baax te da koy tudd fu bare bare bari dafay leeral lu mel noonu ngay tudd ci saw làmmiñ la li nga ci war a tudd waaye di ca wattandiku loo xam ne waroo ko caa tudd ci wax lu amul rek wax ju ñaaw daf ne nit dafa dikk ne ko ndax ab jullit dana yambare dana dana bàqaar mu ne ko waaw waaw ndax ab jullit dana njaaloo mu ne waaw waaw ab jullit dana naan sàngar mu ne waaw waaw waaye ndax ab jullit dana wax lu amut mu ne déedéet ab jullit du wax lu amut képp kuy wax lu amul rek mën ngaa jàpp ne doo ab jullit kon loolu wane na ne sàmm suñuy làmmiñ di ci wax liñ ci war a wax waaye wattandiku sunuy làmmiñ ba bañ cee wax lu ñu ci war a wax loolu lu rëy rëy la ci lislaam lu rëy rëy la ci biir gi waaye nag ñu xam ne noonu lisla làmmiñ mën a lore lor ji muy lor du yem ci ki koy wax rek waaye ki koy wax ak ki koy diglu ñoo ci yem kiy diglu waxi safaan ak kiy wax waxi safaan ñoo yem képp ab ab ab ab yool ab bàkkaar bàkkaar bi ñu am ñoo yem wax ju safaan ku ko wax am nga bàkkaar ku ko dégg am nga bàkkaar ku ko tasaare am nga bàkkaar te loolu gis nañu mi ngi tasaaroo lool nit ñi diglu wax yoo xam ne ñoom ci seen bopp waroo koo diglu yow bàkkaar la ci yow waaye yemoo ci bañ koo diglu waaye danga koo diglu ba noppi tasaarewaat ko ñeneen di ko digluwaat nga am ñaari bàkkaar nga xam ne yàgg ko defoon ko yéen yam képp te rawatina jamono yi njëkk nga xam ne tasaare lu mel noonu dafa yomb nekk na lu yéemu lool lu tiitloo mboolem ñi nga xam ne am nañu tiitukaay li leen tiitloo mooy nit ñi déggëb safaan ni mu yombee ci ñoom léegi nga xam ne boo demee ci ñiy diglu dañ lay wax ne kii waxub safaan ñi koy diglu moo ëpp ñiy diglu kii waxu yiw loolu lu rëy na loo xam ne lu jar a jàq la lu jar a tiit la te tasaaroo na ci jamono ji lool te sunu borom yàgg nañu koo wattandiku loo inna alladina yuhibbuuna an tachia alfaaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira ñi nga xam ne dañoo bëgg a siiwal ak mbon ci biir jullit yi siiwal wax ju bon siiwal jëf ju bon ci biir jullit yi nee na nañ xaar ëllëg danaa leen buggal mugul mu metti bu ëllëgee waaye bokk na ca ñam tàgg ni mooy ñi nga xam ne buñ déggee waxi safaan dañuy du mooyu sakk seen i nopp wa ida samiu llahwa aradu anhu wa qaalu lana amaluna wa lakum amalukum laa nabtaxi ljahilin saa bu ñu déggee waxi safaan ñoom duñ fa toog di xam lu mu wax ak lu mu waxul waaye dañuy dëddu sakk seen i nopp moom wëlbatiku jëm feneen del waxaat ne waqad nuzila alaykum fi lkitaabi an ida samitum ayati illahi yukfaru biha wa yustahzahu biha fala taqudu maahum xatta yaxuudu fi hadisin xayri fu ngeen dégg ab safaan moo xam ci téereb yàlla bi la jëm moo xam ci nitu yàlla la jëm wala safaanu wax ju bon la rek nee na na ngeen ko dëdd wax joojee bu leen toog fañ koy waxee bu leen diglu lañ koy digloo del waxaat ne lawlaa istamitumuhu qultu maa yakunu lana an natakallama bi hada subhanak hada buxtaanun azim boo déggee wax ju safaan da nga naan lii de man kenn waru koo dégg waaye kenn waru koo nettali kenn waru koo dégg waaye kenn waru koo nettali loolu jara jar sàmm la waaw Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu waxaat nañu ko noonu ko yonent bi waxee yàlla waxee ko noonu waxaat nañu ci biir tasawudu subaan boo ci demee ma ngi lay wax nag say nopp nag yow miy déglu loo ci war a war a diglu ak loo ci war a diglu kiy wax bi mu ko waxee li mu war a wax ba noppi waaye yow miy diglu loo war a diglu ak loo war a diglu wal taxfadu l aadaana an isqaa'i biha li bidatin aw ilfaxshaa'i kal xawdi fi lfuduli walxiibati ma kulli kalaamin da sawaabin labiqa ne sa nopp yii bu ci diglu mukk lenn loo xam ne bidaa la wala lépp loo xam ne wax ju ñaaw la wala lépp loo xam ne ay fudulul kalaam la wax ju amul njariñ wala nga cay jëw nee na loolu lépp bu diglu ndax yow mi koy diglu da ngay yem ki ko wax wala tazunnu anna isma alxaybati anna wala tazunnu anna isma alxaybati yaxtassu fi bilqaa'ili fi lmusibati nee na bul jàpp ne kiy jëw wala muy wax lu ñaaw moom mi wax rek la la waaye yow mi koy diglu it yow ci sama bopp wax jooju dalay lay concerné yow mi ko diglu yaa ngi moom mi ko wax yéen ci bokk ab atte rawatina yow mi ko diglu ba noppi nag tasaarewaat ko nag yow yaay gën a bari ab ab ab ab fa fi xadiisihi salaatu rabbihi alayhi wal aali maan wa saxbihi inna alladi alxaybata qad yastamiu yushariku alqaaila fi ma yasmau nee na képp kuy diglu kuy jëw wala sax kuy wax lu ñaaw lu nekk rek yi moom yow mi koy diglu ak ki ko wax yéen yéen yéen ñaar wa kullu man atlaqa uznayhi suda ila al hawa fa sawfa yaalamu gada ku boyal sa nopp rek lu ñu wax nga diglu ko lu ñëw rek nga diglu lu ñëw nga diglu nee na ëllëg da nga xalsee te xam ne la nga doon def du lu jub kon yéen mbokk yépp intabihu fi anna al a'daa ghadan alaykum tashhadu baadirul huda da ngeen xam ne seen cër yii yàlla leen ko bindal te bu yowmal xiyaamee dañuy taxaw di leen seere ñoom kenn ku ci nekk lam defoon mu di ko wax làmmiñ wa di wax nopp ya di wax gimiñ ko di wax lépp di wax kenn ku ne la nga defoon nga toog di ko wax yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu ya'maluun kon yàlla nu yàlla dimbale ba sàmm sàmmal sunu nopp sàmmal nu sunuy làmmiñ ñu ciy wax liñ ci war a wax di ci wattandiku li ñu ci war a wattandiku sàmmal na suñuy nopp ba duñ ci déglu lenn loo xam ne lu ñu war a déglu la wajal lisaani qalbi zakirayka maan inda al mamaati ma al imaani ya allahu saddi lisaani nawir janaani saffi amaani wasid baraay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu